diggante boobu la ñi nga xam ne dañoo tuub ci biir xude sulh Hudaybiya gàddaay si fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy dixième niveau bi ñi nga xamante ne nag fatxu Makka la ñu tuub wala boog diggante maanaam voilà euh, maanaam sulh Hudaybiya wax naa ko ah mm-hmm. mooy ñoom ñooy neuvième bi non mm-hmm. voilà dixième bi mooy ñi nga xam ne diggante sulh Hudaybiya ak fatxu Makka la ak bi nga xam ne ouverture maanaam bi ñuy conquérir Makka maanaam bi ñu conquérir Makka ñoom ñooy ñi gàddaay si ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel ne ay Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu ak ñu mel ne ñoom voilà ñoom ci diggante boobu la ñu tuub si ak ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi tuub Fathu Makka ci boppam mooy ñaata onzième ak ñeneen ñi ci des na parce que nag sama borom subhanahu wa ta'ala moo dox def diggante entre ñi tuub Fathu Makka ñi nga xam ne ñoom avant Fathu Makka lañ ñëwoon ak ñi nga xam ne ginnaaw Fathu Makka lañ ñëw waaw laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna waaw diggante fatxu Makka kon moom moom moo sabro subhanahu wa ta'ala euh, euh, pour ñu résumer taseeg yenent bi wax nañ ko lan moo tax ñu indi ko nekk jullit parce que lan parce que abu euh, ku mel ne ay abu jahlin tase nañu ak yonent bi sallam jamono ji muy dund Abu Lahab et cetera ñoom ñëpp tase nañu ak yonent bi Abu Talib kenn mënu leen wax ne ay saxaaba lañ radiyallahu anhum Uqbata ibnu Abi Mu'ayt ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ak ak ñooñu duñu ay saxaaba Abdullah ibnu Salul naafeq <laughs> Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul <laughs> ah non mais naafeq la bu mënta nekk saxaaba yi waaw maanaam julli la doon feeñal mais ñëpp xam nañ ne naa fekk la daal maanaam voilà tudde boolewuñ ko ci julli ñi parce que yéeféer la en fait yéeféer la bu doon wane ne jullit la rek waaw mais ñëpp xam nañ ni yéeféer la ah waaw non non non loolu kenn defu ko voilà am na ay preuves yu koy wane voilà voilà maanaam ci jëf yi yàlla dénoncé ko aussi wax na ne waaw naafeq bi wax na nangam naafeq loolu nga xam ne kon kooku moom naafeq la waaw selon événement yi aussi quoi dégg nga voilà et puis ñoom ñëpp xamoon nañ ni naafeq la dax lu lu sharia maanaam lu yeneen bi doon tëral moo ko yàq plan bu yeneen bi doon tëral moo ko yàq bu demee bañ nar a xeex moom mooy fexe ba ba toog ba gaa toog duñ dem te moom bu demee day yàq foofa la fa ne day yàq <laughs> maanaam bu jógee ba dem rek day yàq waaw waaw moom moo tasaare woon par exemple tuuma bi daloon ci moom moo ko def moom moo demoon ba gaa yi dem nekk ay environ mille ak lu teg mu dem ba ci digg bi jël tiers bi yëpp tiersu arme bi yëpp fexe ba ba delloo leen ginnaaw gaa yi fii boo fi demee xam nga da ngay waaru et puis sax xam nga fii wóorul quoi te kuy dee da ngay xam ci li ngay dee ah et puis <laughs> voilà de toute façon man demuma parce que sax man sama affaire yaa ngi fee sama tool yi ah toppatoo ma ko ba léegi bu ko defee gars yi ah oui man sax sama ñag bi ba léegi defaraguma ko ki ci des ne oui man xam nga <laughs> gars yi mu delloo gars yi voilà ak yu mel noonu daal bëri na daal lu mu def ma pare alxuraan en tout cas daal bëri na daal luy wane ne moom naa fekk moom mooy naa fekk naa fekk la voilà dégg euh, kon kooku. Euh, Euh, euh, munuñu ko boole ci saxaaba yi radiyallahu anhum léegi mu am ñoo xamante ne euh, mu ne kon taseeg moom mu nekk jullit jamono di yeneen ci bi di dund sallallahu alayhi wasallam gis nga tënk boobu nag tënk la bu am solo boo xamante ne dañ ko def laa ilaha illallah xamna ci masala bobu inshallah lañuy jéxalé bu bénen yone dinañ ñëw ci ngëneelu saxaaba yi radiyallahu ak yu mel noonu mais ci gàttal tamit batay mais ci masala bobu inshallah taala ci lañuy jéxalé lan mo tax sahaba yi boroo ko xam rahmatullah alayhim ha baal ma ah mais garaawul après dañ koy continuer waaw waaw parce que temps bi moo tax quoi waaw waxoon naa ne sax peut-être que mën na bañ a mat quoi on n'aura pas voilà le temps nécessaire pour voilà de toute façon non li ëpp solo rek mooy yéen yéen a ngi gis ni lii la lii la lii la loolu moo ëpp solo déjà euh, et yi ngeen koy noter voilà dégg donc euh, saxaaba yi radiyallahu taala anhum lan moo tax borom xam-xam rahmatullahi alayhim ne par exemple keedu saxaaba maanaam ki maanaam ne ne saxaaba day daja yenn saa saam ci jamono ji muy dund tënk googu lan lay jariñ loolu mooy dafa fekk ne day am ñoo xam ne dañuy daje yeneen bi sallallahu alayhi génn naaw bi mu dund maanaam ginnaaw bi nga xamante ne génn àdduna loolu moo tax borom xam-xam yi tënk tënk googu noonu. saxaaba yi radiyallahu taala anhum li tax ñu ne ñooy ñi dajeeg yenent bi sallallahu alayhi ci jamono ji muy dund dafa fekk ne dafa am ñoo xam ne dañuy dajeeg yenent bi sallallahu alayhi ginnaaw jamono ji mu dundatul ak ñeneen ñooñu ñu bari lañ ay millions ay millions yi millions yi ay ay millions <laughs> <laughs> jullit lañ dégg nga yàlla nañ ci yàlla boole. amiin yeneen bi waaw incha allah léegi nag loolu ñu bari de am na léegi ñoo xamante ne dañ koy jéngat ba tax ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ne alxaafis imam as-Suyuti rahimahullahu taala bind na ci téere bu tudd tanwiirul xalak fii imkaani ru'yati nabii wal malak téere la ci bind pour leeral lool alxaafis ibn al imam ash-Sha'rani rahimahullahu taala Euh, bëri na ci ay parti yoo xamante ne daf koo indi bokk na ci euh, ci téere bi euh, te bokk na ci ñi mu nettali mu ne ku mel ne imam Cheikh Ahmad Az-Zawawi rahimahullah wa radiya anhu nee na moom day dama ko gis mu ne day taseeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam day gisanteeg moom tous les jours te mu ne balaa mu doon am loolu doon na nekk koo xam ne chaque jour day dana def salaatu ala nabi cinquante mille fois chaque jour cinquante mille fois salaatu ala nabi déedéet waaw imam Nuruddin Ash-Shanwani tamit mu ne kooku moom te ñooñu xam da leen xam mu ne kooku trente mille fois lay def salaatu ala nabi par jour pendant un an mu muy gis yeneen bi sallallahu alayhi moo tax ñoom ah, comme li Cheikh Ibrahim al-Madbuli rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wax mu ne ñun suñu tariqa mu ñun maanaam ñoom mu tarixatu mat bu léegi mooy da ngay bëri rek looy def ay salaatu ala nabi maanaam parce que salaatu ala nabi de toute façon loolu mooy maanaam euh, moo tax euh, tariqa bi ñu naan jël na weer de salaatu fatiha maanaam lu tax salaatu ala nabi boobu am solo te salaatu fatiha mu ëpp doole yeneen salaatu ala nabi yi ñooñu doon def ce qui veut dire ku ci góorgóorlu war ngaa mën a am loolu comme li nga xam ne moom la Cheikh Omar radiyallahu anhu ah dégg naa kenn ci shurafa yi shérif yi ku ne dafa laaj Cheikh Omar radiyallahu anhu ne ko yéen da ngeen ne seen tarixa bi ku ko ku ko jël pendant quarante jour da ngay gis yenente bi sallallahu alayhi mu ne ko waaw yow jëloo ko mu ne ko jël naa ko quarante jour am nga ko mu ne ko waaw mu ne mais gisuma dara mu ne ko nag baax na nee na dani ko da ko da ko da ko téye ne ko nekkal ak man mu nekk ak moom mu may ko mu mu mu saa yu waaju ne ah man xaaral ma dem naa ne ndox waay mu ne ko déedéet bul naan ndox ndox laa lay tere mu toog hmm? waaw defal lépp lekkal lu la neex mais ndox bu ko naan waa ji toog trois jours ne ko gis nga sëñ man ndox rek laay gis léegi mu ne waaw kay gis nga nag bu la yitteeloo woon nii di nga gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu doon fonke woon ko bi dégg nga waaw ah, dégg nga léegi ah, Ash-Shanwani rahmatullah moom daal man nee na man trente mille laa doon la def yenn sa euh, si kër yenn saa tam ci mu di ko gis tous les jours ba mu jigi lu ko jaaxal sax danaan ko ala la la yent bi ah, masala sàngam moom lan moo ci yaate mu ne ko nangam la mu daal di jëf Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nee na man loolu musuma den di nekk koo xam te ne maanaam maanaam saa su ne maanaam depuis bi mu amee maqaama yi mu am mu ne saa su nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam du ma yëngatu lu dul yenent bi moom ma ko wax sallallahu alayhi wasallam moo tax bi ñu ko laajee Abul Abbas al-Mursi radiyallahu anhu dafa ne man yenent bi sallallahu alayhi 40 jours 40 ans wa ngi nii musuma ko tek musuma musuma tok cherche bu ma ko gisul 40 ans té bis bu ma toogoon benn Thiès gisuma yenn ci saa sam bolé ci sama bop ci biir jullit ci wa motax ci Lataa'iful Minan Ibn Ataa'illah Iskandari rahimahullah war a daan nee na laaj Abu Abakar Muslim mës naa toog parce que moy talibum mo d'ailleurs moy khalifam sax mu ne ko musna tok toog mu ne mës na toog jour abou Abbas al-Muslim radiyallahu anhu ñëw Eh, benn waay ñëw ne da koy nuyu jox ko loxo bi ndey mu ne ko déedéet loxo bi yeneen ci bi rek laa ciy nuyu sallallahu alayhi wa sallam maanaam eh, eh, te loolu man gi mu mane a ne dafa jéggi dayo ni maanaam dafa leer bokk na ci li nga xamante ne day ware ne mën naa nekk maam dañuy insha allah résumé masala boobu mm, donte maanaam am soloom tax na ñu maanaam dañ ko war a leeral daal mais tamit dinañ ko leeral ci maanaa maanaam ci tënk te incha allah yaakaar naa tamit mu matal incha allah première bi li nga xamante ne moom maanaam moo koy wane mooy sama borom subhaanahu wa taala dafa wax ne dafa tukkil jaamam subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa maanaam gàcce ngàllaama buur bi nga xamante ne moom moo gàddaayal maanaam moom moo tukkil jaamam bi guddi tukki googu nga xam ne moom la ko tukkil guddi mu jógee masjid al aqsa masjid al haram masjid al haram dem masjid al aqsa yéeg jëm ba ca kaw ba ci kaw ah, gis na te ci guddi googu moom moo ko nettali ci xadis yu sax ci ñaari téere yi nga xam ne ñoo ëpp ñoo gën a wér ci téere xadis yi mooy saxiixul Buxaari ak saxiix Muslim ñu ngi ci Muwatta imaamu Maalik rahimahullah ñu ngi ci sunan yi ñu ngi ci masaanid yi mooy lan mooy ne moom moo ne gis na jour boobu yenent yi ba jiite na leen julli yenent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom dañ génnoon àdduna jamono jooju bu fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi mën na maanaam manam yenen yenen ci meun nañ ko feñu mom bamu gis le mom mi nga xamne mom moom ñu gën te mom mo leen gën ñom legi mom mi ñu gën lan moo tax moom mënuñoo feñu ñun bañu gis ko lolu benn affaire benen la benn mbir la manam lu bu am solo la benen bi ci def moy li alquran wax ci bir sar bi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaaka illa fitnatan lin linnaasi wash-shajarata al-mal'unata fi l-qur'ani wa nukhawwifuhum wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira yàlla ne wa wa ma ja'alna defuñu ru'yaka li ñu la wanan maanaam mooy tukki googu mu tukki gis gi mu doon gis euh, yeneen yeeg ah alayhi salaatu wasalaam ak et cetera kéemaan yi mu gis daal ci rañaan googu mu ne defuñu ko illaa fitnatan lin-naas loolu pour ñu nattu ci nit ñi. moo tax keroog jamono jooju am na ñoo xamante ne dañoo dañoo tubbi ne waa ji léegi mi ngi nettali lu ko neex parce que mu ne nag loolu defuñu ko lu dul pour nattu nit ñi léegi nattu bi loolu moo lay war ne dafa tukki woon ci jëmmam parce que gént. ñun kenn ku ci nekk da nga gént dem fu sori kon doo du loolu mooy problème bi bu doon gént kese la bu doon nattu li tax mu nekk nattu mooy dafa ne dafa dem ak yaramam ak jëmmam yéeg di gisante yeneen yi jiite leen et cetera loolu bu mënee nekk ci ñoom mooy mën naa nekk ci ñun beneen bi ci def mooy ñaari àdduna moo am aalamul xayb bi moo am ak aalamul shahada loolu mooy li nga xam ne borom xam yëpp d'accord nañ ci. te lool alquran tudd nako alimul xaybi wa shahada moy yàlla moy ki nga xamné mo xam al alxaybu mo xam shahada moy le monde des du mystère et de l'invisible ak le monde bi nga xamante mom lañuy gis manam bi ñuy bi bu 5 sens yi bu 5 sens yi mu ne euh te lool moy légui nak moy lan légui nañ sét alamul xaybi ñan ñoo ci ne ak alamul shahada ñan ñoo ci ne alamul shahada ñi ci né gis nañ leen moy ñi nga xamné 5 sens yi dañ leen di mëna jot mais alamul xaybi ñan ñoo ci nekk jinne yi ñoo ci ne malaaka yi nit ñi dee ñi dee et cetera aljana safara léegi est-ce que alamul xayb am na lu ci lan mooy wan lan moo tere est-ce que am na benn atte ci sharia am na benn àtte ci sharia bu ne wala benn texte ci sharia bu ne lépp lu nekk ci alamul xayb bi moom mënta feeñ ci alamu shahara dafa am xam nga amul loolu moo tax Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu bi muy wax waajoo ci Faatihatul Tulaab dane dani ah, tabban liman ankara hadha al qiila laysa lahu dalilun illa qiila <laughs> tabban taskere ñeel na alkuna kan liman ankara képp koo xamante ne tabban tor taskere alkane ñeel na liman ñeel na képp koo xam ne ankara dafa weddi hadha al qiila bii wax ni Cheikh Tidiane daanan tase na ak yéen ci saa salaam ndax lan mu na laysa lahu dalilun amul benn dalil illa qiila lu dul nee nañu ah gaa yi de nee nañ mënta ne fan lan mooy wane ni mënta ne ànd ak ne texte yi dañu wane ne mën naa ne ànd ak ne texte yi dañoo wane mën naa ne te bokk na ci li nga xamante ne moo gën a dëgëral maanaa boobu mooy le fait que par exemple jinne yi léeg-léeg nit ñu gis leen malaaka yi léeg-léeg ñu gis ñu gis leen xadis yoo xam ne dañoo wér péng sax ci saxeex yi saxeexul Buxaari saxeexul rahmatullah alayhi ak yeneen wane nañ ni ummu salama radiallahu anha ummu salama abdallah ibn abbas ak yeneen mbooloo ci sahaaba yi radiallahu anhu d'ailleurs premier xadis bi nekk ci saxeex muslim mooy xadis omar ibn xataab radiallahu ay sahaaba yu gis yenn yu gis jibril alayhi salaam ak yeneen ah, ak ak ñeneen ñoo xamante ne dañ daan gis eh, malaaka yi ñuy xeex badar waa waaw dégg ah donc ñoo xamante ne gis nañu malaaka yi léegi te ñooñu ban monde lañ bokk da alamul xayb la léegi lan mooy wane ni mënta ne lan moo wane ni rek ne gis yeneen bi moom sallallahu alayhi wala gis ñeneen ñi maanaam ku nekk ci alamul xayb bi mënta ne ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam génnul àdduna comme ñun ni ñu génn comme en tout cas ni mu ëpp ci nit ñi ni ñu génne àdduna te bokk na li koy wane xadis bi nga xamante ne ah, ah non encore plus encore plus lii wane ne mën naa ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari saxeex maanaam saxeexul Buxaari ak saxeexu Muslim niki noonu Euh, Malik ibn Abdallah euh, maanaam euh, ci mu ngi ci Mu'jamu Tabaraani radiyallahu anhu maanaam Malik ibn solo na même xadis ni ci noonu moom Addaari rahimahullah solo na ko ci xadis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp solo nañ ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne man ra'aani fil manaami koo xamante ne mës nga ma gis ci génn da ma mës a gis nii ci jéebéer maanaam di ma mës a gis nii nelaw yé doo nelaw doo def dara di ma gis al-Hafiz Abi Jamra almaliki rahimahullahu taala moo bind bahjatu nufus bahjatu nufus mooy téere bi nga xam ne moom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne vraiment boobu bu matoon boobu bu fekkonte ne téere yi ne ci saxiixul buxaari hadis yi ne ci saxiixul buxaari yi yëpp in chara woon na leen kon mooy nekk téere bi chara saxiixul buxaari bi gën a mat kon doonul doon fatxul baari bu alxaafis ibn xajar bi kon téere boobu lay doon kon moo lay wan ne charte boobu charte bu dëgër la mais nag c'est que en fait bahjatu nufus Ah, daf ko ta da dafa dafa jël ay quelques xadis yu nekk ci Sahih Bukhari rek yu mu yu mu choisir moom gis seen importance mu commentaire leen mais commentaire ul sax téere bi yëpp ci biir xadis boobu bi bi mu ci yegsee dafa wax ne dafa ne fii nag borom xam-xam yi wuute nañ fi wuute nañ ah bokk na ci mu ne am nañu ne ah dina ma ku ma gis ci gént dana ma mës a gis yowmal xiyaam la ci jublu mais loolu sikk nekku ci ne amul du du wax yeneen bi saa sal jubluwu ci lool ndax lan ndax dafa sax ci ay euh, ndax ne maanaam yowmal xiyaamati de toute façon jullit ñëpp dinañ gis ñi ko gis ci gént ak ñi ko gis ci gént te bokk na te li ah, xam nga li mu wax dëgër bokk na ci li koy dëgëral mooy la mooy xadis bi nekk ci Muwatta bi yéen ak mi ngi ci saxee yi tamit yeneen bi sallallahu alayhi maa ngi leen di jox rendez bu fan fan cambal ca mbalkama kañ yowmal qiyaamati ma di leen nandal yàlla nañ ci yàlla boole mu ne ñooñu ñu ne ko mu ne mu ne parce que sama xeet dañu ñëw ñu ne ko nan nga leen di xàmmeewe sa ni ni ñu bëree teñ te dañuy ñëw ci sa ginnaaw mu ne parce que sama xeet inna ummati ah yud'awna yawmal qiyaamati wala ah, yub'asuna yawmal qiyaamati xurran muhajjalina min athari wujuud mooy xarit Abu Hurayra boobu la sama xeet bu ñu ñëwee yawmal qiyaamati seen cëru njàpp yi mooy weex mooy weex kon ci laa leen di xàmmee kon mooy wane ni ñooñu dinañ gis yeneen bi yeneen bi dina leen gis sallallahu alayhi wasallam kon sikki nekkul ci ne boobu taxul muy wax ñu ne kon am na ne nag mu ne nag am na sax nag ñu naan li ko tax a wax <laughs> li tax a jóg mooy nee nag maanaam euh, <coughs> loolu daal du ñëpp parce que wala boog loolu daal amul maanaam euh, euh, jubluwu ci lool daal mooy daal dina ko gis rek ci bëti xolam. manam daal ku ko gént gis ko bo yeewoo di nga ko fatali ko gis ko melni di nga ko mu lolu nak mom interprétation bobu dafa ànd ak ñaari danger premier danger bi moy da ngaa détourner waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci sens apparent bi premier sens bi sans mu am ben dalil lolu moy premier manam nga ñàkk gëm li yenenbi wax sallalahu alayhi wasallam deuxième danger bi ci nek moy da ngaa ñàkk xam katanu yalla ni mu te lan moo koy wane bokk na ci li koy wane mooy li yeneen maanaam euh, euh, li nga xamante ne maanaam mu ne xanaa xooluñu ci sóoratul baqara waa nga xamante ne dafa dee ñu jël euh, lenn ci ci ci nag rek dóor ko ku mu yeewu dekki maam Ibrahima alayhi salaatu salaam rey ñeenti façon picc yu wuute jaxase leen et cetera teg teg ci ñeenti doj yu wuute kenn ku ci nekk kenn ku ci ne dikkat ak Uzayr Uzayr alayhi salaam moom tamit lu mu def mom dafa ñew yému ci bénn dëkk bu dee mu né na yàlla ray ko mom mom ak mbam bi ñu fënax lepp ah, waaw ñam baak lepp yaqku manam ñam ba sax la ñam baag ndox ma yàquwul mu yeewu dekki xol gis ñu ne ko xol sa ndox meeg sa ñam bi ñu dara jotu leen léegi sa mbam bi par contre fënax na wax ku mu jóg mbam bi jugat réparé waat défar waat lepp taxawat dëkk bi mu gis dëkk bi naat yoy non mu ne wala mu ne xol leen yàlla mi def jël dara rek ci nag moo xam yàpp wala en tout cas ko ci nit ku dee yàlla def loola nekk sababu mu dekki yàlla mi def woote moom Ibrahima alayhi salaatu wasalaam taxaw rek daan ne hey baajooli ñëwal kopin ñëwal ah, kanaara ñëwal ganaar ñëwal tax ñoom ñëpp ñu ñëw fekk dañ leen rayoon jaxase leen dëbb leen jaxase ah ñoom ñëpp ba def ay juug ñoom ñëpp ñu constitué waat ñëw yàlla mi def dëkk boobu dekk ak Uzayr ah ci ci maanaam ci ci sababu ah yéemu rek bi mu yéemu woon yàlla mi def loolu est-ce que amul kàttan ci def nit gént yeneen bi sallallahu alayhi tax mu mën koo gis est-ce que kàttanam dafa gën a tuuti loolu déedéet ma ne ko rawatina que ni li nga xamante ne xadiisu Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mu ngi ci euh, sunan yi euh, euh, ci sunan al-Bayhaqi Euh, ak euh, al qaadi Abu Ya'la euh, imam Abu Ya'la rahimahullah tam indi na ko ci musnadam mu ne mala mu ne yeneen ci alayhimu salaatu wa salaam ñoom déew maanaam yàlla du leen bàyyi ci siira biir bàmmeel yi du leen bàyyi du ñu dee noonu te bokk na ci li koy gën a dëgër xadiis yi nga xam ne ñoo ne ci saxiixu muslim nga xamante ne xadiisu rañaan bi d'abord première bi mu ne dama romb dama romb mu ne dama romb yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ne dama romb Abdallah ibn safla dama romb yent yàlla Musa alayhi salam muy julli ci bir bamelam lolou lan mokoy def ruh mokoy def julli jëmm moy seug ka ci gi mune ne déjà lolou ben la ñaaral ben beus dafa taxaw ne ci Sahih Muslim ci kitabul iman mune ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu ben digeunte Makka ak medina mu rombu ben khur manam ben montagne ni ben vallée vallée voilà nee na mu ne euh, fii fan la ñu ne ko fii mooy vallée sàngam mu ne waaw mu ne dama fi gisoon yeneen ci yàlla Muusa alayhi salaam muy zikar taf nopp bi di zikar loolu moo tax imam an-Nawawi rahimahullah bi muy sharh xadis boobu ci Sahih Muslim dani ah xadis bi dalil la maanaam day tegtale ne di sikar di taf say nopp di wax di def say nopp nii loolu am na cosaan ci diine dalil la mu ne mu romb beneen man Sanniya mu romb ko benn montagne bu ñuy wax Sanniya mu ne fii fan la ñu ne ko fii Sanniya la tudd mu ne ah yeneen si bi de mu ne mu ne fii de romb naa yeneen si yàlla yuuru sax alayhi salaam mu yéeg ci kaw mbaam ba pare sol jubba moom jubba mooy affaire boobu mooy euh, benn kii la euh, genre yëre mooy naar yi di sol léeg-léeg di ko def nii ah voilà tunique la daal bu ñuy teg nii ci seen kaw mu ne bu xonq yéeg ci kaw mbaamam di di di def talbiya nan maanaam labbayk allahumma labbayk et cetera dañuy aj et cetera maanaam mu gis la loolu noonu bu fekkente ne maanaam loolu nekk gi mu nekk beneen bi mooy xadis boobu dëggal gi ñu ko dëggal al-Hafiz ibn Abi Jamr rahimahullah wax na ko nee na dëggal gii dëggal ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax jooju bi mu wax ne ku ma gis ci gént di nga ma gis ci ci ci ci ci ci ci jaxaran mu ne li koy gën a tegtale mu ne mu ne mu ne loolu moom interprétation bi ci wér mooy ne di nga ko gis donte sa jamono ji ngay fin wu maanaam donte sa fin wu dund la maanaam boo demee bay dee ba nga xam ne yaa ngi ci sa sukuraat au moins wax jooju yeneen ci wax dana nekk dëgg sallallahu alayhi wasallam nga gis ko au moins foofu. am na nag ñoo xam ne maintenant comme li moom as-Suyuti laa wax selon sa sellte selon sa sellte selon ni nga toppee sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci nga nga koy gis lu bari ak lu néew ci nga koy gis lu bari. ak lu néew te loolu moo tax mu ne nag ñàkk a topp sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moo tax musiba bu mag a mag la musiba bu mag la te bokk na ci li nga xamante ne moo koy gën a tegtale mooy li nga xamante ne moom la wax ne mu ne mu ne moo tax alxa imam al imam mu ne mu ne al Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam daf ni kenn ci saxaaba yi parce que xadis boobu nag par contre moom waxul fan la ko mais su ma juumul vraiment mi ngi ci mu'jamu tabaraani xadis boobu mi ngi ci mu'jamu tabaraani mu ne rahimahullah mu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne mu ne abdallah kenn ci saxaaba yi yaakaar naa ne abdallah ibn effectivement maanaam gis man gis naa ci ci téere ci ci téere xadis yi ne abdallah ibn abbas la radiyallahu par contre moom daf ne dafa yaakaar ne mais par contre wóoratuma ban la ci téere xadis mais yaakaar fort que ni mu'jamu tabaraani la rahimahullah mu Euh, ye mu ne yaakaar naa ne Abdallah ibn Abbas moo géntoon ne dafa gis yeneen